faux billets yéen a kaay gi ne na douane ma ngi ko jàpp ñetti fan jàpp ñeenti fan ci weeru mi atum 2021 yéen a kaay gi ne na drogue beeg yàmbaa ji yëmul foofu ndax douane bu Kaolack jàpp na lu toll ci 1400 maanaam ci ay kilo drogue jàpp na tamit lu toll ci juróomi téeméer ci ay kilo yàmba yéen a kaay ne na douane bu Guinguinéo jàpp na lu toll ci ñaari téeméer ak ñeent fukk ci ay kilo yàmba yéen a kaay gi ne na ñu wax ci lu jëm ci wàllum faux billets yi ndax douane jàpp na lu toll ci 2266 ci ay faux billets 100 euros ak lu toll ci 89 ci ay faux billets 200 euros yéene kaay gi ne na benn bus boo xamante ni jaww bi la jóge woon wutal ci ndakaaru moom lañ ko jàppee yéene kaay gi di vox populi nee na lu toll ci mille six cent cinquante ay kilos yamba jàpp nañu ko ak lu toll ci deux cent quarante cinq mille ci ay faux billets ci ay euros yéene kaay gi nee lu toll ci juróomi téeméer ci ay kilos médicament jàpp nañu ko yéene kaay gi nee na di réew mi quotidien en tout cas faux billets yi ni nga xam ne moom la jàbbaa jóngee ci réewum Sénégal na dayo waaye nag bul fàtte yamba jeeg drogue bi yéene kaay gi du l'observateur ak sud du quotidien ak di président Macky Sall ci nawet bi inondation yi ba mu amee ca Kër Massar demoon na santoon Aly Ngouille Ndiaye ak Omar Gueye na leen Kër Massar gii dinañu ko def département njiitu réew mi di Macky Sall ma nga sa dax sous-préfet arrondissement bu Bambilor di Modou Bassirou Ndaw convoqué na li nga xam ne mooy ay procédure d'urgence réunion d'urgence yéen a kaay gi ne na Kër Massar jamono ji nag ab département la ñu koy def Macky Sall dafa accéléré mbir yi yéen a kaay gi ne na jaxaay li ñuy ko Kër Massar jël Bambilor dugal ko Kër Massar ko Kër Massar yéen gi Diamniadio léegi nii nag arrondissement waaye nag ànd si ak ñi nga xam ne bi njiitu réew mi di président Macky la sax xëy dañu xibaar naan ñu Macky Sall département bu Rufisque daf koo ko di réew ci xëlim ak Assane Samb nee na lii ram saña bala jëm te bu amee kër du baax maanaam soo muy duulee lambay ñaaw ndax li nga xam ne moom lañ nemmeeku ci réew mi baaxoo la maanaam fajal sa bopp ndax gi Mari Sagna nii nga xam ne moom lañ ko def fan yi ñu génn gisoon nañ Serigne Bara Sène ca diwaanu Dohine ñu def ku mel ak ca diwaanu Dougar ak ca Ndengler yéen kaay gi ne na université Cheikh Anta bu Ndakaaru amoon na fa situation bi bëri ay réew yoo xam ne maanaam guerre civile ba fii la commencé yéen kaay gi de l'Observateur nee na docteur Abdou Sarr mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon hôpital Maguette Lô ba ca Linguère ginnaaw ba fa ñeenti la yi nga xamante ni ñoo bokk ci SAMES te nekk diwaanu Louga ñoom nag jóg nañ tubayul ki nga xam ne mooy docteur Aliou Sarr ndax ñoom jàpp nañu ne ministère bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér gi yaram gi taxawaay bi nga xam ne moom la waroon a am ci bërëbu fajukaay yi taxawaay boobee la amul yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan limin jàkk léegi tey mu ñëw ci réew mi di Sénégal jox nañu ko ab passeport am xam ne toll na ci 327 millions yéene kaay gi di li quotidien xëy injection la Pierre Atepa Goudiaby yóbbu ko fa mbaxana doone benn tribunalum Dakar niki démb nag daan wax Aby leer lu leer nee na ko lii nga xamante ni moom nga wax ci Pierre Atepa Goudiaby dara du ci dëgg Aby Ndour tëj lu toll si ñetti ati kaso yoo xam ne du ko tëdd ba pare amande ko lu toll ci fukk ci ay millions yéen a kaay sunu lamb xëy na ci ñetti combat yi nga xamante ni Balla Gaye jël na ko avantage ak risque yi nga xam ne moo ci nekk Max Mbargane nee na dafay ragal Balla Gaye 2 mujjee am ay blessure na loolee nag dafay tax Balla Gaye 2 maanaam yëg boppam